Assalamualaikum, bok internet yi dalen ak jaamu ci Sen Sport 221 dañuy doré transfert golo Kanté mom nak jamono bi Atlético de Madrid dañ ko bëgg signé gannaaw bi nga xamé ni kat gis nañu fan yi ñu nekk ci mbirum ki di Conor Gallagher yëf yi dëgër ba tey jii mënuñu officialiser ab transfert mu melni sax digënté mak Chelsea football club neexul digënté Atlético ak Chelsea liko waral moy Atlético dañu am lu leen metti lool yi deltu ginnaw gi Chelsea deltu ginnaw ci kooku nga xamné moy samu omar Region bobu nga xamné dañ ko bëggoon signé waye nak ñu gis né dem nañ ba ci li nga xamné mo visite ba ñu ne dañu nemmeeku dal ab blessure bo xamné am na ko moo tax dégg maam ñu dal di deltu ginnaaw ci mbir mu alati nag loolu moom nekk xam ne da koo waaye ba tey jii ki nga xam ne mooy Gallagher mu ngi foofu la ca Espagne Chelsea nag nee leen ñu matal transfert bi léegi-léegi ci ñoom gën a gaawee wala ñu delloo ko foofu la ca Angleterre jëla neen ci xibaar yi ñuy xam ne daal Chelsea dal dinañuy book sax li nga xam ne mooy fly maanaam benn avion boo xam ne moo ko war a ko ñu ngi ci marché bi di làmbaale yeneen mbir bokk na ci N'Golo Kanté bii nga xam ne jamono bi dañ ko bëgg moom nag ancien joueur Chelsea football club la bu nekk foofale ci Arabie Saoudite voilà di fa def jaloor yi am solo ak El Ittihad jamono bi ñoom waa Atlético ñu ngi ko bëgg waaye nag am nañ beneen kayit xibaar bu ñuy xamal ne Al Ittihad ñoom la waxoon West rek la wax Atlético maanaam bàyyiwuñu xel mukk tàqale ko ak ki nga xam ne mooy ak forme bi mu nek nga am ko ci équipe bobu di Atletico de Madrid lolou mom benen bir lay doon waaye dal li nga xamne mom lañu jangal ci tasko de xibar moy Al Ittihad ñom dañu deltu ginnaw manam dañu lank ne duñu ko bay wala mom ki di Kanté bi nga xamne ne gis nañu ne élément bu am solo la ci seen équipe le nga xamne ne jamono bi ñu ngi wër yeneen renfort ngir def saison bu gën bi nga xamne ne daal dinañu koy def ni daw lo moy lolou loolu ni bi nga xamante ne ancien joueur Arsenal la seen gardien la won nekkon foofule ca Juventus ci at yi ñu weesu jamono bi nee kat mom takhalé ko nak Juve nañu wala ci jamm su ko ku ne dem sa yoon gannaaw bi nga kat Juventus dañu am coach bu yees am coppite yu bari yoo xam ne ñu ngi koy am ci jamono bi sees nii kon dañ ko mujjee libéré waaye nag déngu maam bàyyiwuñu ko noonu rek mu dem ak loxoy am na koppar yu takku ñu wax ne danañ ko teg ci loxoom voilà gannaaw bi nga xam ne kon waxtaan nañu ba déggu ci jàmm ku ne dem sa yoon moom dafay nekk kon agent libre dina mën a dem signé ji fu ko neex moom ki nga xamante ni mooy seen gardien boobu ñoo ko bëgg signé Ajax nag xam ngeen seen gardien de but ba ñu amoon muy Rulli dañ ko jaay fële nga xam ne mooy Olympique Marseille ku ko wuutu nag jamono bi moom la ci marché kii ñuy wax Ilay Camara moom nag ab joueur Sénégal la bokk doomu Sénégal la ba juddoo ca Belgique nekk foofu la sax di fa footballé ca Belgique ca Molenbeek la nekkoon waaye jamono bi ñoom Molenbeek dañ ko ablé ci club bi nga xamne moy standard ledge fofu lañ ko appelé mo ngi tollu ci ñaar fukki at ak ben ne ko xamanteni nak ap ab ailier la mën na jouer tam comme ab comme latéral ku am xarañté la wala mom ki nga xam moy mooy Camara wala ku polyvalent la niki daw marqué na ñetti bit ak li nga xam moy passes kon fukki bal mo ngi won ci tankam ci saison daw ren ji nak yi nga xamanteni do standard ledge dañ ko ab am nañu tam option d'achat bu tollu ci ñaari million bu ñu sukkandeku ci taskari xibaari mom gone gi nak mom xamle won na ne dafa bëgg football pour équipe nationale bu Sénégal ci jamono bi nga xamne sax ñu ngi amone jafe-jafe gër am ab lateral droit kon ki nga xamne moy Aliou Cissé bu ko baye xel xeyna du ñak mu war ko mëna a yittewoo ngir dénga am renforcer li nga xamné moy équipe bi ci walum défense bi na ci côté droit bi Chelsea Football Club mom dañoo dal di yokku contrat ki nga xamné voilà moy Cole Palmer bi nga xamné niki daw mo daaw sen meilleur joueur meilleur bi tam niki daw voilà dal di def saison bu reuy jamono bi yokk na ñaari at ci contrat manam maanaam fi mu at la desal ñi di Chelsea Football Club juroom ñent at ndax contrat ba lamu ci yokk daf ko yóbbu ba 2033 ci la contrat ba wara a jeex yokk nañu tam li nga xamné moy salaire am nañu waral moy ngandi saison bi mu def niki ki Thiès dañoo kontaan ci moom lool gis nañu ne daal ku am xarañte la te nag dinañu ko yittewoo ci at yu bari di ñëw ci kanam moo tax ñu daal di profito externe di contrat am li nga xamante mooy salaire kon moom dina nekk koo xamante dina des foofu la ci Chelsea Football Club amal na daan daal juróom-ñeent ati contrat moom ki nga xamante mooy Cole Palmer jëlee nañu tam ci beneen taskatu xibaar mu ñuy xamal ne bu ñu jógee ci moom ki danañu yokk contrat bi yeneen ñaari at maanaam danañ yokk ci contrat am yeneen ñaari at yokk li nga xam ne mooy salaire loolu jàngat nañ ko ci beneen taskatu xibaar voilà Nicolas Jackson donte ne gars ñu bëri dañ ko doon critiqué xëy na ñu bëri ñu koy critiqué ñàkk a xam football rek ak yàkkamti voilà waaye dañu bëri fi ñu teg li nga xam ne mooy critique yi mooy raté gi muy raté waaye kenn du wax ne mënul football waaye raté goo xam ne yaa ngi turam amal na ko ci match bi ñu mujjee am donte ne titulairul voilà du ñàkk kon ren ji mu def saison bu gën bi mu def daaw kon Chelsea gannaaw bi ñu yokkee contrat kii di Cole Palmer bëgg nañu yokk tamit contrat ki nga xam ne mooy Nicolas Jackson ñaari at ci kanam bu ñu sukkandikoo ci taskatu xibaar yi